الشمس أمست في حرجي وبيدك تفريج الحرج هاجا لدعاك خواطرنا والويل لها إن لم تهد يا من عودت اللطف أعد عاداتك من لطف الفرج اليقظة ضيق وشدته وافتح ما خفت من الفرج عجنا لجنابك نقصده والأنفس في أوج الوهج وإلى أفضالك يا أملي يا ريعتنا إن لم نجد من للملهوف سواك يغث أو للمضطر سواك نجد وإساءتنا عن بابك حتى لم نلج فلك معاص أخطى ورجاك أبحت له ما من فلج يا سيدنا يا خالقنا قد ضاق الحبل على ولدي وعبادك أضحوا في ألم ما بين مخيل من وزج يا سيدنا يا خالقنا قد ضاق الحبل على ولدي يا سيدنا لنا وعبادك أب أو في ألم ما بين مكيف وسجن والأحشى صارت في حلق والأعين غابت في لجج والأعين صارت في لجج غابت في الموت مع المهج والأزمة زادت شدتها يا أزمة علك تنفرج جئناك بقلب منكسر ولسان في الشقوى لهج وبخوف الذلة في وجل لكن برجائك ممتثل فكم استشفى مذكوم ذنب بنشر الرحمة والأجل وبعينك ما نلقاه وما فيه الأحوال من المرج والفضل أعم ولا قد قل تدعوني فلنبتهج وبكل نبي نسأل يا رب الأرباب وكل نبي وبفضل الذكر وحكمته وبما قد أوضع من مهدي وبسر الأحرف إذ وردت وبياء النور المنبرد وبسر الأودع في بطد وبما في واح مهدد وبسر الباء ونقطتها من بسم الله لكي نهدي وبقاف القهر وقوتها وبقهر القاهر وبسر الباء ونقطتها من بسم الله لكي نهدي وبسر الباء ونقطتها من بسم الله لكي نهدي وبقاف القهر وقوتها وبقهر القاهر للمهدي وببرد الماء بذاته وهو بالنفس مع السيد وبحر النار وحدتها وبسر الفرقة والنقد وبما طعمت من التطعيم وما تركت من التعب يا قاهر يا ذا الشدة يا ذا البات أغيث يا ذا الفرج يا رب أنفسنا ومصيبتنا من حيث نجيب يا رب خلقنا من جی کیسا فرحے کیسا شرحے کیسا فخجے کیسا سرجے ويطيب مقامك ما نفر أدعو في الحين الإبليس كسرجي وفوا لله لما عهدوا من بيع الأنفس والمهدي وهم الهادي وفوا عثمان شهيد الدار وفاء فرقا على درجي وأبي الحسنين مع الأولاد كذا الأزواج وكل شجيب ما مال المال نجي وإذا كتبا الآن فقل أشيدة أو تكبير مهجي أشيدة أو تكبير مهجي يا رب فعاجل بالفرج يا رب فعاجل وجل بالفرج يا رب فعجل بالفرج يا رب فعجل بالفرج لقد عادت خفيفة ربيع بيتك الذي يخاطبه لك خطوب نحره تخاطبه مهما نحى إليك ألا تعرض أن نعرض لا يرضى من أمن وتعالى لساني وتما تكف عنه ربها مهما صل على من أنزل ذكر حكيم عليه عين الرحمات والنعيم له من المراتب العليا عجاب صل على المطهر له من المواهب العليا ما يفرق قلبا مديرا عاف الدائم وياك في البلد ربنا اغفر لنا وجدد بما بلا لابد تخشنا عن الحساب وذرنا خشب والعتاب العفو عفوك بلا متابعه اذانك الكريم بعد تابعه سلم على ايه كل معتبر ونعمه العظمى لكل منتظر يدخل من اتى به البيوت لرحمه يرجو من المولى لطائف المنن يرجو بكل حالة من الفتن دناك من دنوه دنوه لمن توصل كلهم نطلب نصرك على الأعداء سهل لنا عبادة الأعداء ادعوا ليستجب لكم أنزلت وأنت لا تخلف ما وعدت مجيب يا قريب يا سميع مانع يا دافع يا رفيع حفيظ يا مجيد يا كريم خبير يا متين يا عليم مقاصد الكنوز والخزائن ورجل الأقوام بالبطن من أمر بصحة الكريم لابد أن يأخذ بالنعيم ديان يا دائم رأي الرب وارث باعث يا باعث الرب باعث أقل عبدك دليل الحسنات حيث نور لم يبق بحر العفو والكبائر من خيراتهم ولا سخائر فضعفا ربي له بالحسنات وألهمنه بنور درجات أدعو بجاه صادق الوعد الأمين يا بر يا ملك الحق المبين تفتح يا فتح بالمفتاح والفتح المغلق والفتاح حميد يا ولي يا شكور رحيم يا عليم يا صبور لنا بأفواد الرضا يفطر أمر غير من إله قاهر من ذا الذي يدعو كما تجيب معارف عن يقين يكون أشاء أن تقد تشاء ويكون ما في بما ولا يكون أهلك علانا مهلك الفراعنة ودمرا مهلكا جاجلا غافر يا ستر يا تواب سدد والكرم يا وهاب لطيف يا رحمن يا الله ولا يقع عليك الحال مني لا ولا قلبي يقومني على الطاعة دعوتي أنت صل وأزواج دعاتي والالتجاء إليك يا مرجانا والالتجاء الفضل يا مرجانا أعز عبيدك بما قد يستعيذ من الشرور أنه مكنفي لا تحملا إصرا علينا ربنا كما عملته الذين قبلنا خذا لنا يا ربنا بالفضل عاقبة أمور خلقي لنا أجرنا ربنا يا رفيقي تجاهك الكريم قد سمعت برفتي مثلا وجهت منية هذا العبد أن تميت على طريق شبه أدخلت لزم ما لزم حتى نالا من رحيم أنا له المقام بكل أولياء الرحمن أبي العباس أحمد تجاني لشرا لنا يا مقود ودود سلام يا صبوح يا عظيم أيوم يا قادر يا رحيم بسر ذاتك وبالأسماء سر أسام سر في السماء قادر يا شديد يا ذا الطول نستغيث بفضلك الواسع نغيث أسبل علينا ثوب ستر ساتر وأنت يا ربي إلينا ننظر صل على المحمود بالسيادة والمهد الحسن بالمجادة شفقت صوتي ووسيلتي حبيبك وسهرك رجاء في حبي أقلنا توفيق والإعانة بأهل ما أمرنا أمانا لكي نؤثر بالحقوق حيث علينا الحق للمخلوق هذا الذي أوضحت من شرائعي ويا بديع رب البلد قصدت نحوك وبالمعاصي منتملا يا أخذا نواسي قد أحسن العبد بك ظنونا لكبر الكايا فتونا بسر ما أنت بالعباد أحمد لنا أنوار الأيادي أخاطب المعين من له الخطاب بنائه لحبه ويستتاب لطيف يا الله عليه صل على محمد خير ولد على حق الوكيل جامع الجليل ولي مهيمن الجميل قائم يا باقي علي كافي قدوس يا عزيز يا محمد قد اقتدر عندك من ذنوبي مطرقا بهوى من عيوبي وسعت الرحمة والغفران لطمة الخلق يا رحمن أطاعت النفس على أمر الهوى ولا تبالي قناعي إذا نوى لأنك المعبود حقا لا سواك مزيد الأكوان صل عليه خالق الإنسان أول يا آخر يا رقيب الفرد المؤمن ويا حسيب دفعت عنا كيد حسيب سيد الحسن وعلم وكل حافظ الحسن يا واحد ظاهر باطن الاحد يا رب الهدف والعلاجي هو يجيب عبده المسكين اتى اليه يبتغي تمكينا يهدي ولا من علم اتاه ولا عطى لمن علم حكيم يا حي ويا عليم قدير يا قدير يا رحيم قدير يا قدير يا بصير مدن يا عدو يا نصير قادر يا حافظ وفي جامع مقد والدولة منافع قهر يا غفر يا معيد منتقم العفو يا مجيد دليل كل متحير وقف يقر في قلبه ومن سقط رفق بيت فرقيت بالقضاء تقوم ما تشهر كمتى هل منافع نافع فذاك غيري فوضع أمري لك نافع غيري يمرء ينظر ما قد قدمت يده والنفس بما قد عملت وكن إلهي تلأل الأصابع لكل عاقد اليمين تابع محمدا خير البرية أتى إنك قد لقد قدمه جميع الأنبياء وكل في رضا يا أخي درج ما درج من طباقي لو يعود إلى الأباق أراه رب العرش ما يرضاه كذا من الأنوار ما يشاء ربي رسولك نبي أمي صل عليه شرع المهدي هدى بشير ومبشر نذير وطاهر مطهر بدر منير حسين الطه راسل وعتب ومؤمن مجرما منتقب اجب لنا بجاه بابك العظيم عين عين وقراء المستقيم لطيف يا مصيب من فردا لنا كفى المراد حيث اردت على المخف لسيدي ساداتي صل وسلم واجعل عبادي وامام الوصل يا رب الفلق ونجي مولاي من شر القلق يدعوك من يبرأ فاتت الحروف من وحكم يحكم يرتب الحروف من وحكم معتمدا بعونك الكريم مفهومي صل على سيد ذي المعراج صل على منهاجي وآله وصحبه المنتخب أنا بعين سيدي العالمين laylatul qadr daje guddi àjjuma nee daje guddi àjjuma gëj naa ci jamono Cheikh al Khalifa gëj gëj naa am ci jamono Cheikh al Khalifa ak léegi guddi àjjuma nee guddi àjjuma laylatul qadri laylatul qadri ngeen jàng fi tawasul yii nee ngeen jàng fi tawasul yii waat naa ci tarixa bi nee waat naa ci tarixa bi ne lii lii ku ci amul yaakaar ku ci amul yaakaar yëg ni da nga ci defaroo. yëg ni da nga ci defaroo. leen di rek a war ci yow nee leen di rek a war ci yow. gis nga xasida bu mujj wax rek. nee gis nga xasida bu mujj bi. waxuma tey siir bi. nee waxuma tey siir bi. nga xam ne sama maam. nga xam ne sama maam. ndomba la ko defee. ndomba la ko defee. bésub àllarba. bésub àllarba. kër Mor Séni Kan. kër Mor Séni Kan. ca yoor yoor. ca yoor yoor sama baay nee na ma doom. sama baay nee na ma doom. tey siir. tey siir seen nopp. seen nopp mooy sama bulletin de naissance. nee na mooy sama bulletin de naissance. at ma ñu defee tey siir. at ma ñu defee tey siir. ci la xalifa gane xaaj euh, àdduna. ci la xalifa gane àdduna. kër Mor Séni Kan. nee kër Mor Séni Kan. bésub àllarba. bésub àllarba. ca yoor yoor. ca yoor yoor ca taatu Dakar ga. ca taatu Dakar ga fa la Maodo defee tey siir. fa la Maodo defee tey siir. keroog ba ma sëñ Moustapha yabalee. nee na keroog ba ma sëñ Moustapha yabalee. mooy ubbi jumaa ja. mooy ubbi jumaa ja. daxaar ga keroog. daxaar ga keroog. hee hee. dañ koo xasa xasa xasa. nee dañu koo xasa xasa xas. te it. te it. asmaa laay xusna yëpp. nee asmaa laay xusna yëpp. xaj ma rënk na ko ci. nee alaaji Maalik rënk na ko ci. xam ngeen saar wu nekk. xam ngeen saar wu nekk. ci alxuraan. ci alxuraan. la mu ca jëlee. la mu ca jëlee daa wax naa leen ko fii. nee daa wax naa leen ko fii. salaatan tuna jinaa. nee salaatan tuna jinaa. ko ci. ko fatiha. salaatu fatiha. mu rëkk ko ci. mu rëkk ko rek doyoon na tey ci guddi gi. loolu rek doyoon na tey ji Ghazali. nee sama waa Ghazali. sama borom jiimiye bi. nee sama bi. nga xam ni bu ma mu bëgg a mës a gis Muhammad. a bëgg a gis Muhammad. day jàngale muy jàng rek. day jàngale muy jàng rek. Mouhamad feeñu ko. ko. bu dee lu mu gàgg. mu gàgganti ko. mu bu dee lu mu jaaxal. mu wax ko mu wax ko. bu xëyee bu xëyee nettali ko. nettali ko. moom doyoon na sëkk. mais moom itam jiim wax. mais jàng maqaama yëpp. yéen ñi jàng maqaama yëpp. xam ngeen Rufaax di mel. xam ngeen loo ko jàngi. bu dee tool. bu dee tool nga suul ko fa. nga suul ko fa jeex na. jeex na. bind wesar ba. def ko ci tool. def ko ci ku ko def ndoom ba ndigg. nee ku ko def ko xëy di jàng. ku ko doo dee ci oto. oto. kenn du la buum. kenn du la buum moom Rufa. borom bi mu koy sos. bi mu jëgg jëgg dañoo ñëw. dañoo ñëw indi marchandise mu bari. andi marchandise mu bari. ceeb ceeb xaalis. xaalis wurus wurus lu ne. lu ne. bañ ñëwee la ba yegg si. nee bañ ñëwee ba yegg si. Amir ibn Fahrata. nee Amir ibn Fahrata. ni ñun day jaaxle nañu. sunu marchandise mii. sunu marchandise mii. wurus. wurus xaalis. xaalis dara desu ci. dara desu ci. te yoon yi. gaynde. ak i bukki. ak i doge. moom noonu nanuy def. moom noonu nanuy def. ñu ne ah. ah. am na sëriñ bu fi nekk boo xam ne am na sëriñ bu fi nekk boo xam ne day. ñu di ko Zayd ibn Ubaadata. ñu di ko Zayd ibn Ubaadata. borom mbir la nañ ca dem. borom mbir la nañ ca dem. bañ demee ni ko loolu kat. nee ko loolu kat. dañ doon voyager. dañ bi nu ñëwee nag. ñu ñëwee nag. indi nañu lu nekk. nee indi leen lu waaye yoon na nag. waaye ngi fi. gaynde ngi fi. ay bukkee ngi fi. ay bukkee ngi fi. yu yàqee ngi fi. yu yàqee ngi dogee ngi fi. mu ne ku ne boo ma weexalee dinaar day. mu ne ah ku ne boo ma weexalee dinaar. danaa leen warlul. danaa leen warlul. ni incha allahu. incha allahu. ànd ak yéen. ànd ak yéen. danaa dem ba delsi. danaa dem ba delsi. te yéen itam da ngeen mucc. te yéen di ngeen mucc. ku ne weexal ko. ku ne weexal. tabaxaat bi la doon jàng. neelu faat bii la doon jàng. bu waxee ñu topp ko. bu waxee ñu ko. nii ngeen def tey rek. nii ngeen def tey rek. ba àgg fa ñu jëm. ba àgg fa ñu jëm dara laalu leen. dara laalu leen Seydi Hadji Malick nag. Seydi Hadji Malick ci maaxam. ci ak yë ak yërmandeem. ak yërmandeem ak yéen ñëpp jàmm. ak yéen a ñëpp jàmm mu bokk ko. mu bokk ko ci maqaama. ci maqaama way ko. way ko. dolli ca la mu ca dolli nag. mais dolli ca la mu ca dolli nag. guddi gii lii la laaj. nee guddi gii lii la laaj. laylatul qadri. laylatul qadri guddi àjjuma. guddi rek la laaj. kon nag. nee kon nag. yal na yàlla guddal seen fan. nee yal na yàlla guddal seen fan. kër gi. kër gi. du ñu dundee alal. nee du ñu dundee alal. du ñu dundee tabax. nee du ñu dundee tabax. du ñu dundee oto yu rafet. nee du ñu dundee oto yu rafet. lu ñu dundee. lu ñuy dundee. xam-xam. xam-xam. islam. islam sak. sak ndax yëpp day dem. ndax yëpp day dem. ay na man saadoo. ay na man saadoo. wa saadoo. wa saadoo. ay na man saadoo. ay na man saadoo. وسادوا وسادوا وبنوا وبنوا هلك الكل هلك الكل فلم يغني الخلل فلم يغني الخلل أين نمروز أين نمروز وكنعان وكنعان ومن ومن ملك الأرض ملك الأرض وولى وعزل سيعيد الله سيعيد الله سيعيد الله كل منهم كل منهم وسيجزي وسيجزي فاعلا ما قد فعل ما قد فعل أي كف يا أي كف لم تفد لم تفد بما تفد بما تفد فرماه الله فرماه الله منه منه بشلل بشلل مني مني أنا نمروس أنا نمروس أنا نمروس وكنعان وكنعان أنا كنعان أنا كنعان ومن ملك الأرض ومن ملك الأرض أن يمون سوسي أن يمون سوسي wa banaw wa banaw ñu tabax ñu tabax ñëpp alaku nañu ñëpp alaku nañu ay na man saado ay na man saado siisu tooy la saa ne ay na man saado wa saado nag wa saado waaw kay wa banaw wa banaw halakal kullu halakal kullu fa lam yuxnil xulal fa lam yuxnil xulal ay na man saado ay na man saado ana sang ya ana sang ya ayna man saado ayna man saado ana yëkkati ana yëkkatoon état cheikh ana ñu yëkkatoon état cheikh wa saado te ñuy sang wa saado te ñuy sang wa banaw wa banaw ñuy tabax ñuy tabax xalakal kullu xalakal kullu ñëpp dee nañu ñëpp dee nañu tekat falam yux ni tekat falam yux ni jariñu leen jariñu leen alxulal alxulal ala ya ñu amee woon ala ya ñu amee woon di kapp kappi di kapp kappi jël nañ leen ne jël nañu leen jaale leen jaale leen tasaare seenub jàll tasaare seenub jàll xalakal kullu. nee xalakal kullu. fël yoonu xulal. nee falam ñu ngi xulal. waaw ay na Namroos. waaye ay na Namroos. mi nga xam ni. mi nga xam ni. moo ne woon maa yàlla. moo ne woon maa yàlla. yaayam. yaayam. yaayu Ibrahima. nee yaayu Ibrahima. Ibrahima yaayam dafa ni yaayam. nee Ibrahima daf ni yaayam. diet Ibrahima. Ibrahima. yaayam daf ko ni. yaayam daf ko ni. dafa ni kuy sa borom. daf ko ni kuy sa borom. yaay kuy sa borom. yaay kuy sa borom. mu ne ko sa baay. mu ne ko sa baay. Azar. Azar. sa baay kuy boromam. waaw sa baay kuy boromam. mu ne ko Namroos. mu ne ko Namroos. mu ne ko Namroos kuy boromam. mu ne ko Namroos kuy boromam. mu bitti loxo. mu bitti loxo. xanaa da ngaa dof. ni ko xanaa da ngaa. Namroos. Namroos. di buuri buuri. di buuri buuri. di yàlla. di yàlla. xam nga lu tax mu ne ko mooy yàlla. mais xam nga lu tax mu ne ko mooy yàlla. ne lu lu yàlla daan def. nee doon ñu ni def ni lu lu yàlla daan def. seen yàlla ji lu muy def. seen yàlla ji lu muy def. ñu ni ko yuux yi wa yumiitu. ñu ni ko yuux yi wa yumiitu. day dundal. day dundal di rey di rey. mu woo ñaari nit. nee mu woo ñaari nit. rey kenn ka. rey kenn ka ni kenn ki demal. ni kenn ki demal. ñëw ñëw. reyoo ma dundal. reyoo ma reyoo ma dundal. ay doomu cere yi ci benn dee waay. loolu moo tax. nee loolu moo tax. yont yàlla Ibrahima. yont yàlla Ibrahima. bi mu ko pesee ngir loolu. mu ko pesee ngir dem ba ca digg ba. mu dem ba ca digg ba. li muy wóolu wóolu yàlla. nee li muy wóolu wóolu yàlla. li muy xam-xam ni man Namroos du dara. li muy xam-xam ni Namroos du dara. mu jaaxle lool. mu jaaxle lool. mu ni yàlla kon nag. mu ni yàlla ngay dekkale way dee. wan ma ne ngay dekkale way dee. mu ne ko awalam tuumin. mu ne ko awalam tuumin. da nga maa wóolatul. da nga maa wóolatul. mu ne ko balee. mu ne ko balee. walaakin liyatma'inna qalbi. walaakin liyatma'inna qalbi. dama bëgg sama xel dal. damaa bëgg sama xel dal. ba ñu xam ne maa ngi waaja. ba ñu xam ne maa ngi waaja maa amee waaja. rabbi arini kayfa tuhyi al-mawtee. rabbi arini kayfa tuhyi al-mawtee. yàlla wooy man ni ngay dekkale way dee. yàlla wooy man ni ngay dekkale way dee. wan man ni ngay dekkale way dee. wan man ni ngay dekkale way dee. mu ne ko awalam tuumin ndax da nga maa wóolatul mu ne ko awalam tuumin ndax da nga maa wóolul mu ne ko balee wóolu naa la mu ne ko balee wóolu naa la walakin liyet ma inna qalbi walakin liyet ma inna qalbi dama bëgg sama xel dal dama bëgg sama xel dal ak ku ànd ak man ku ànd ak man ba ñu xam ne maa maa amee waaja ba ñu xam ne maa amee waaja mu ne ko indil ma ñeenti ñanaaw. ñaa mu ne ko indil ma ñeenti ñanaaw. yu am dunq. yu am dunq. ganaar. ganaar baaxoñ. baaxoñ kanaara. kanaara musa njuburu. musa njuburu. mu indi ko. nee mu indi ko. mu ne reyal. nee mu ne reyal. mu rey. mu rey mu ne ko suqil. mu ne ko suqil. mu suqi mu suqi. mu ne tenqil. mu ne tenqil. mu tenqi. mu tenqi jaxaseel yàq yeeg yàpp yi. jaxaseel yàq yeeg yàpp yi. mu jaxase. mu jaxase mu ne ko nag. mu ne ko nag def ko ñeenti saam. def ko ñeenti saam. mu def ñeenti saam. mu def ñeenti saam. mu ne ko faj al. mu ne ko faj al. ala kulli jabalin. ala kulli jabalin. min hunna juz'an. min hunna juz'an.